yéen ñi toog jóg leen taxaw wax jërëjëfe sëñ tubaa bis bii kenn ci am ndam muy Serigne Touba na ku ne yëkkati sa loxo ca kaw wax jërëjëfe sëñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba tubaab bi lim bëggoon tey bu amoon nun duñ toog fii sëriñ falu noo lay nuyu moom si Abdoul Khadir sun la nuyoo nuyu jëwrinu Serigne Touba Alaaji Mbàkke yu fay foofu doy na di nuyu soxna Soda di nuyu monsieur commissaire ak préfet dama ni gars yi tey xewoon ñun rakk yi ñu julli démb sax fàtte nan ko rakk yi ñu julli weer wee fàtte nan ko rakk yi ñu doon fàttaliku tey ren mooy cent vingt neuf ans kon buñ ko fàttewul am na lu tax Conakry Dakar ñu gaale gaal gu tudd ville de Pernambouc gaal googu ñi ngi ko liggéey 1882 mu doon zone brute yaatoo 11 mètres virgule yaatoo 94 mètres mi ngi guddee 94 mètres yaatoo 11 mètres virgule ki ko doon dawal mi ngi tudd Roux ñu jële fii sunu waa ji ci port autonome de Dakar dem ba séenatuñu ndakaaru ñu ne liñ bëgg dana am ñu ne tax ñu ne tey la mës gis géej sañ ta wàcc ci ndox mi sëriñ bi jël der bi ñu ne ko doo julli ci gaal gi mu jël gaal gi sànni ci géej gi sëriñ mu Ka nee na keroog la gaal gay daw ba wàllu tisbaar muy jàpp am madam bu sew dikk daal fay jaar dikk taxaw ci kanamam dal di koy laal bamba fawaan njàpp ma dal di am àll ba muy masaa ma dem ba del si ngir laal ko ne tuuti kon mu tàkk far baal ko gars yi ba dar yi ñoo ko booleeg der ba lal ko ca ndox ma demut ca bël ba Cheikh Bamba dal di jàpp julli tisbaar gars yi ba dar yaa def maa moom lii doyug waar keroog la Bamba mës a feeñal xar baax lu baax du baax ba weesu baax Bamba baax Bamba baax bamba baax moo ko doon xibaar duñ ko duural ku yabu gëm ku weddi buural tuuba man amala waylullaay waylin man an kamaram billaay keroog la bamba romb waaye ndarloos machine ba rulle ba weesu ma ndarloos ab dun la capitaine belee ko teeru ba waa Angleterre làkkiy tuuru yor la gal tebbi jëm ko naa kiri bisub dibeer noonu yaa nga naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf gal koste dun buñ naan tubat Mara Ndiaye Konte keroog la njëkk a gis Kourmane ak Timileke Kourpon ñu néew maana mu daldi di romb Accra ak waa Cameroun sa sandrar la wàcc gaal gi ni fa ñuul ana murid yi ana murid yi ana murid yi ana murid yi wax leen jërëjëf sëñ Touba màggal leen Serigne Touba waaye wax leen jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Bamba Serigne Mamour jërëjëf euh, comme ni ko waxoon ci programme rek sañ Basirou Kane la ñuy jox mu jàng alxuraan ba tey rek ñu bàyyi xel ci suñu mbokk yi nekk Touba ca ndox ma waaw nañ bàyyi xel ni ko sëñ bi waxee rek dégg ngeen ko alxuraan xasida sikkar te ñu bàyyi xel suñu mbokk yi nekk Touba ca biir ndox ma bisimilah.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 ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم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 صدق الله العظيم الله أكبر jërëjëf sëñ Basirou léegi nag day ñëw ci Serigne Mamadou Ndiaye il va parler au nom du comité d'organisation c'est le mooy coordinateur kuréel bi ñu jox ko kàddu gi rek moom it mu wax bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu wa sallam. yéen sunu bokki jullit. yéen kilifa yi nga xam ne sunu borom dagal na ngeen taaral bis bii. rawatina yéen sunu bokki murit. ak képp koo xam ne wuy si na woote bi noo ngi ànd ak yéen di siyaar Cheikh Muntaxa di ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu namal liggéeyal maam ci lislaam mu yeggale ko ci sago ak wér ak wérle te nu ànd kook moom te lépp luñ ci yëkk ci dëppook ngërëmal sëriñ bi noo ngi siyaar sëriñ Fallu noo ngi siyaar sëriñ Cheikh noo ngi siyaarit sëriñ mbàkk yu fay mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ bi ci sow di ci porox ndoll di jaar ci nuyoo di siyaar soxna sooda xumma mi nga xam ne moom la suñu borom dogal yan bi tege ci kawam ñuy ñaan suñu borom woyofal ko ko di sàkku ci mbooloo mi ñi nga xam ne suñu borom dogaloon na ñu bokk liggéey bi te nu jiitu ñu teewlu ñaanal leen sunu borom àtte leen ci yërmandeem te yeesal ko ci ñoom ñi nga xam ne it seenaw yaram sutante na suñu borom delloo leen ci sago ñi nga xam ne it gàllankoori xat-xatu jamono tënk na leen suñu borom dimbali leen ci noo ngi koy ñaan ci barkeb bis bi ci barkeb julli gi ci barkeb sëriñ Touba. xam naa ni ni ko sëñ Ibra waxee rek ñun ñëpp suñu xel a ngi tuuba ci xeexoo ba waaye tënk ko ci ndigalit waaye mënuñoo yàq si yëkkati ay kàddu ci turu soxna si ak turu kuréel gii nga xam ne suñu borom dimbali nañu. ñuy taxawee liggéey bi ndax liggéey bii de danoo jàpp ni laytaayam mooy ndigal te murit amul lu dul ndigal ndax lin defab takk ci laytaayam mooy ndigal mooy nangoo nan ci Cheikh Muntaxa mu ne liggéey bii de mooy ki ko sos te sosub sëñ Muntaxa rek doy na liggéey waaye ba mu ne mooy ki ko sosit ndigal da cee tàbbiwaat ndax da cee waxtaan ak wuy juróom wa sëriñ Saaliw mu xamal ko ni ndegam ñaari ràkkay ndar ya la màggal waris naa mën a bàyyi xel julli farata gii sëriñ bi julli woon ci géej gi mu am yéeney lool taxawu ko am yéeney lool taxawu bés bi am yéeney jiite ko waaye mu mës a pénc lii maa ko nangoo ci moom mu mës a pénc ak way juróom wa sëriñ Abdul Ahad ya moom it yàlla na yàlla yokk leeram mu xamal ko ni moom de wàcc waaye mooy nekk ca la mu war a nekk rek mbaa mu nekk ci li mu nekk nee na boobee ba tey nag mu xam ni moom wàcc waaye mooy la ko sëñ Abdul Ahad wax terewul nag wut na ay jëwriñ ñu koy seytul liggéey bi li ko tàmbalee ci sëriñ Nasiru Touré yàlla na yàlla yokk leeram ba keroog muy yegg si jaar ci sëriñ baaba Gueye jàmbaar ja jaar ci sëriñ Alioune Badara Cissé jaar ci Cheikh Makhtar juuf ba keroog muy yegg si ci sunu jàmbaar jii di sëriñ Mbàkke yu fay naam mu yor ko ci yor bu gàtt saxit nag ndax ñëpp xam na ne sas wi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox ci sow sëriñ ba nag ne woon sëriñ Muntaxa sëriñ Saaliw ne woon sëriñ Muntaxa bés bii de nan ko def bésub ndakaaru kon ñun waa ndakaaru wu nanoo santaat yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin waaye bu nu ko defee bésub ndakaaru yit yilla ji mooy nan ko def bésub lislaam bésub lislaam nag ñëpp xam na ni wàcc mooy njàngum alxuraan njàngum xasida sikar bernde ak ay salaatu ala nabi foofee la ñuy sukkandiku sax di porox ndoll ni képp koo xam ne yaa ngi ci jataay bi te sunu borom dogal teew lu woo alxuraan teewlu woo xasida nga jël sa kurus mbaa ngay def ay zikr mbaa ngay def ay salaatu ba keroog ñu di fi jóge ngir def ko àddiyee sëriñ Tuubaa ak at ci ren bi sëriñ bi ñibbee loolee kuréel gi jël ren ne nañu ci waxtaan ci jeexital yi ndax at mu jot danañu ubbi aw xët ngir waxtaane ko ñu ne kon nanu waxtaane téeméeri at ginnaaw bi sëriñ bi ñibbee Tuubaa ana lan moo fiy jeexital yi ñu santaat yàlla bu baax nag ndax ay boroomi xam-xam taxawee nañu ko ba ubbiwaat yeneen bunt ci biir yoo xam ne dimbali nañu ba ñu mën a mottali sunu taalibe mën a xam fu ñuy taxawee di seereel mbooloo mi ne kuréel gi dey ak yéen ñii ñu ko àndal dara taxu ñoo jóg lu dul màggal liggéey bii nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci géej gi waaye it teg si ne nanu ci dolli sunu pas-pas ci sëriñ bi ba dara du ko yëngal ndax lu bari yëg nañ ko ci réew mi jamono jiñ toll nii waaye sunu pas nañ ko delloo ci sëriñ bi xam ne sëriñ bi dong la ñu am sëriñ bi la yaakaar tey sëriñ bi lanu yaakaar ëllëg santaat yàlla bu baaxit nag alhamdulilahi rabil alamin bi nu yàlla defee ay jullit ba pare jëliñu ciy jullit def ñu taalibey sëriñ Touba kon yàlla ni suñu borom taxawu ba nu mën a doon dëgg dëgg taalibey sëriñ Touba fexe nag ba kenn sëriñ bi ci jëfam ji nga xam ne wàccam ci kaw suuf dara waralu ko woon lu dul kenn du féete yàlla si kaw suñu borom kenn du ko féete kaw ñu fexe ba ñun ci sunu wax ci sunu jëf ci sunu doxin ak ci sunu nekkin ñu fexe ba loolee ñu mën koo taxaw foofe nag ci lañuy jaar di santaat yàlla bu baax fas yéene doon lantinooru kuréel gi jaare ko ci soxna si muy yóbbal boo xam ne ci ñi mu ko sañe jox ak ñun ñii nga xam ne ñooy ndaw ñi ñu fàttaliku julli gii sëriñ bi julli woon ci géej bi dara waralu ko woon lu dul gëm yàlla ak wóolu yàlla moo taxoon mu jëf ko kon mi ngi fàttali rawatina ndaw ñi nanu nekk ca la ñu war a nekk te doyloo suñu boroom gëm sunu borom te xam ne li ma leen wax sànq ci njëlbeen gi bis bii dey ndigal mooy laytaayam kon noo ngi fàttaliwaat ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko kon nanu ci taqaloo fas yéene ko liggéey waaye doyloo yàlla wakkiirlu si yàlla xam ne lu jot suñu borom dana ko def loolee mooy li nga xam ne soxna si mi ngi koy yóbbante ci atum ren mii ba képp koo xam ne suñu borom dogal na ngay teewlu kàddu yi noo ngi lay ñaan nga am dégg ak akuk topp noo ngi wàcce foofu suñuy kàddu ci turu kuréel gi di ñaanaat sëriñ Muntaxa yàlla nag suñu borom yàggal wéral ko sëriñ Muntaxa yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko soxna Soda Xuma yàlla na ko suñu borom dëgëral ñun ñi ànd ak moom it yàlla nañu yàlla may dal ak kàttan gu nu ànd ak moom salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, jërëjëf sëriñ Mamadou Ndiaye yow wax nga ci turu comité organisation ak président. Euh, euh,